ñëpp murid yëpp ñu rafet ak jullit yi mhm. mais di ñaawlu aussi taxawaayu Mbacke yu fay. sérieux oui. ah lu mu def parce yu fay amul sañ-sañu di taxaw di sant Macky Sall te sant sëriñ Touba Serigne Touba la war a sant ndax Macky Sall deful lu ko lenn ba muy taxaw foofu naan day sant Macky Sall bu dee politique na dugg ci géew politique bi Serigne tuubaa da ko jël jiital ko fi taxaw loo ko jumaa na yam si loolu. mais moo indi Macky sàll foofu moo ko programme indi ko foofu guy ma Massalikul Jinaan te Macky Sall li mu nekk si dëkk bi yëpp ñu immigré ba jumaa ji ba tey musu faa teg tànkam amul soxla si ci ci ci doxalinu murit faalewul murit yi mu fexe ba indi ko fi Macky sàll mi nga xam ñëw na foofu au lieu que mu rafetlu taxawaay bi wane maanaam mbégteem lan la def mooy yéen murit yi nga xam ne tabax ngeen jumaa yi ak julli di dina leen tabaxal mar boo xam ne bu ngeen jullee ba faatu ngeen ñu yóbbu leen margo loolu la ñu Macky Sall faye mayu déet waay nga taxaw si baas naan jërëjëf Macky Sall loolu ma Macky Faye mm, euh, Macky Faye war na ko wax. intérêt bopp moo tax mais du intérêt sëriñ bi na bàyyi loolu. Macky mooy représentant mu sëñ bi fii parce que dama ni dama nekkee représentant sëñ bi au Dakar la mu def sëñ bi daf la wuku ko ndax sëriñ Bass Abdou Khadir moo yore kàddu sëriñ bi te sëriñ Bass ba nga toog sëriñ Bass ko daa ko wax sëriñ Bass la sëriñ bi jox lépp. Mm-hmm. sëriñ ba a ngi toog. mooy porte parole mooy porte parole bi. Mm-hmm. lan mooy yoonam sant Macky Sall. lan la fi Macky def yow jumaa ji liggéeyaloon ko ba mu àgg Macky Sall dugg la fi ñaar gërëmam lépp mu rëy ak sëñ Touba sëñ Sidi Moxtaar ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér daanaka li fi nekk lépp moo ko fi def mun Mountakha ñu àggale ko bi ñuy jébal jumaa ji lan la waxoon jumaa ji mooy lépp liggéey bi mat na ba des na deux cent millions mais loolu amul tey jii maanaam milliards yi nga xamante ni moom la joxoon sëriñ bi yow boo dee taalibe nga joxe at yi loo koy fesale moo tax sëriñ mun taxa yàlla fi yàgg te mooy sëñ Tuubaa mu ne ko na nga ko delloo si jumaay sëñ Tuubaa ji ci néegub yàlla bi mhm. moo tax pourtant loolu moo na fa tabax istati mhm. ak istati boo xam ne dafay jàngale mën na fa tabax màggu lan mooy ndey Macky Sall la ñëw ñu tabax suñu ba noppi mu ne yéen murid yi dama dama leen yéen a ngeen faatu moo tax Ina Fonte ba la Margo. Margo moom mooy feeñ ci nit. kooku moom ëpp na xëy na daf ko waxee noonu pour contribution. mais mais au au delà de wax na tamit. bëri la waroon a participer mooy. jumaa ji kat bi ñu koy tabax. def naa si nangam pour dimbale ko maanaam liggéey bi. Mhm. waaye Serigne Touba moo ñu baaxee ba alal ju lewut du dugg si jumaa ji. soxlawuñu alalam. Mhm. parce que yàlla yàlla bind na Serigne Touba loo xamante ne lu lewu du fa dugg. Mhm. depuis ban tàmbali tàmbali léegi ba jumaa ji ba léegi observation bi si def da nga xam ñaata milliards la. Mhm. ana loolu ak an lañ si indi kan moo contrôler kon dañoo war a auditer jumaa ji dañ ko war a auditer parce que xaalis bi fi dugg daf kenn xamul mu toll kenn xamu ko. mooy wax muy ñëw di sant Macky Sall ci base boo xam ne parti problème ma nga fa toog muy sëriñ Bass Abdou Khadre moo ah, parce que loolu waru ko def.